ñu jublu ci point bu jot bi Serigne Gallés Seye salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ah, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di ñaan suñu wasila Cheikh Moussa Bakar Mouhamed ñu nekk si daan lool ak wér ñu ko yàggal ci gannaaw bañ ak lépp lu yéene liggéey Serigne Touba saa yëpp ci gannaaw barke Serigne Touba ñu ànd ak moom lépp ba lépp sotti naari maam ya bu juróom ak naari boppam ba lépp mat kenn leen ko njëkk kenn leen ko mujj te it dinañ def seen alal te lay seen doole ñu seen kàttan ñu ngi koy def seen tim laay kàttan te loolu wax dëgg yàlla lu rëy la lu foor la it nag te dañ leen di ñaan suñu borom defal leen ci wér ak gudd fan ba li ngeen yéenee liggéeyal seen sang yu baax yi nga xam ne ñoo ànd ak Cheikh Moustapha Mbacké Mouhamed ngeen def ci lu kaay seen njort di soññe baax nag lii nga xam ne moom lañ jub muy màggal gi nga xam ne mooy osmars ñun fi ne nii nee nañ suñuy wax képp koo xamante ne ci nga bokk li lay laaj mu néew du mu bari nañ ci fas yéenee nekk te liñ am mu néew mu bari nañ ko ciy joxe ndax jàpp naa ñaari weer moom fi mu ne nii moom euh, ñëw na ba pare ndax lu daan wax ay at la tey ñu naan ay weer tey ñu naan ñaari weer moom agsi na lu waaye am na ko joxe euh, boo ko joxee ñu bind la ko da ngeen boole yar gi ak gi tey jënd yére yu baax yoo xamante ne bu ko solee dina xam ne ñun ñii kat ñooy waa jamaaxatu muy diina saari diina waxtu naa moroomi soxna yi ndax jàpp naa ne am na ci yére yoo xamante ne moom euh, génnul kër sax bay dem ci daayira wala muy dem ci màggal ba tax na kon ñu ngi koy ñëpp ba képp koo xamante ne yor nga yoo xamante ne mën naa dem ci màggal ga mu dem ci ñi nga xam ne amuñu yére yoo xamante ne leer na lii wut a mën a génn kër ñu bàyyi ko ci kër gi te su séenee jënd yére yoo xam ne dañ ko mën a yóbbu te buñ dee dem nañ ànd ak pas-pas ak yéene ak liggéeyal sëñ bi moo ñu fa tax a yóbbu te lépp loo xamante ne foo la wala caaxaan ñu ko fii ndax jàpp naa ne kuy liggéeyal sëñ bi waroo cee boole caaxaan wala nga boole ci lenn loo xamante ne ëllëg dinañ ne ah ñii kat ñoom ñoo defoon rek ñoom ñooy sol bula zone yi loolu nañ ko moytu bu baax te moytu tam téléphone yi ndax jàpp naa ne liggéey bu la taxee jóg da ngay jël nag li nga xam ne moom moo daan fooy ci sa kër nga teg ko sa kër boo ko mënta teg sa kër it nga teg ko foo xamante ne waaye dinañ la jot waaye bu ca nekk ndax foo yi nit yi fo mën naa dem ba foo xamante ne duñ ko fa bëgg te fekk na àgg na fa kon nan mooy bu baax yi ak lépp loo xam caaxaan la ak ko gisee ci yow du doon lu neex kon ñoo taxaw foofu wasalaam. jërëjëf soxna Aminata Gadiaga na matale na am ñu ngi lay baax di su ko defee bala ñoo ñëw ci Serigne Cheikh rek ñu fàttaliwaat ne. sant Baye Talla ñoom Baye Talla Dieng ñoom ñoom boobu di sant Mbodj la bu foo séenee. Euh, dañuy fàttali jërëjëf Amika tamit jërëjëf Sëñ Mbacke Mouhamad